salaamaaleykum mbokk auditeur auditrice yéen ji faral di seetaan seen télévision Baol Time TV tey nag dañoo doxantoo fi nga xam ni moo di marché Ndoumbé Diop nekk ci fi nga xam ni moo di njaareem ñu ñëwoon doxantu di leen xoolal li nga xam ni moo di ambiance korite bi waaw maa ngi lay nuyu di fay di nuyu Sénégal gépp di nuyu axlu njaareem gépp ah. aussi di la nuyu di nuyu waa Baol Time bu baax a baax ndax nit ñi ñu ngi jënd ak bi fan la toll montant la ñu ñu gënoon a xam que ni moo gën a xew ndax nit ñi ñu ngi koy faral di jënd bu baax a baax waaw nit ñi moom ñu ngi koy paral di sol bu baax a baax a baax euh, ñun nag alhamdulilah sant yàlla yëg nañ suñ bopp bu baax euh, ndax mën na ne euh, clients yi ñu ngi ñëw ñu ngi jënd jënd bu waaw jënd jënd bi moom neex na affaire yi neex na moom wax dëgg yàlla événement moom gis nañ suñu bopp tamit dëgg yàlla gis nañ suñu bopp bu baax a baax. ñoo ko déggandoo nee na gis nañ ci seen bopp bu baax a baax clients yaa ngi ñëw jënd beeg jaay bi lépp macha allah. bëgg a xam lan moo la indi si marché bi ak lan moo doon sa teewaay si marché bi ak ban si nga fi doon jënd. marché bi li ma feen di mooy fii dafa am tissu rafet ndax tissu yomb na te rafet na basé boo bu la gën a rafet nga ne bii la organ sa am na fi dentelle tissu rafet rek dafa am te yomb na ñëwal sa doom ba mu rafet looloo tax ñu jëndee fii si jug bi ndax dafa yomb. jug bi dafa yomb moo tax du ngeen faral di jëndee si fi nga xam ne moo di si biir. est-ce si soxna si mënoon nañoo xam ban tissu ngay jënd taay. tey daal man xam nga ban tissu laa jënd damaa ñëw rek pour jënd sama organ saa bu baax rek def ko rek sama robe bu tubaabe rek. sëñ faral di wax ne brodé bi moo gën a nekk en topp ci korite gi yan ñaw lañ koy ñëw ndax yéen a ngi sant seen bopp ci client yi. waaw waaw dëgg la ñu ngi sant suñu bopp bu baax sax brodé bi waa moo génn nag moo génn na nga ci ñëw ay 217 heures rafet ak ñëw simple nice tamit di ci def garniture tamit ren moom moo génn ak doole nag moo génn doole moom. moo xew tamit xam nga gars yi moom lu xew rek dañuy ànd ak moom moom moo tax instant bi moo nekk mu atom nii moom. soxna si na nga maa ngi fi. Ah, est-ce que mënoon nañoo xam yan façon tresse moom ngeen génne si li nga xam ne moo di événement bi ak yan façon teg yan gi defaat ñoo génn ndax clients yi ñu ngi ñëw yéen a ngi ciy yëg seen bopp bu baax a baax. waaw ñu ngi ciy yëg suñu bopp moom clients yi ñu ngi ñëw wax dëgg fa yàlla ins bi moom dégagé moom moo ndax dafa tàng moom la soo ba tey loolu lañ fi def dégagé réer de côté gërëfaas bu gàtt. loolu lañu ciy def entre greffage bu gudd ak greffage bu gàtt ban moo ci gën a dox yéen lañ ci faral di gën a jënd non greffage bu gàtt greffage bu gàtt moo dox na dafa tàng ins bi nii lool moo tax mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen a ngi àndaloon ñi nga xam ne ñoo di Baol Times TV